mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu dalaloon soxna Aïda Dramé Dramé joué woon fi ba du mun lépp ñëpp di ko coow ñu foog ne fa lay yem mu ñëwaat ci drapage toj ko soxna Aïda Dramé ñu ngi lay dalal di la nuyu waaw euh, waa production euh, mhm. Fadia production euh, maa ngi leen di nuyu yéen tamit mhm. di leen ziar bu baax di nuyu askan di ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi ah di wax nag Faya production benn site la bu bees seen YouTube bu bees macha allah indi leen ay émission yu bees bu ci mel ne bii may waaj a commencé ñu ngi tudd li ci kër yi lii xew ci kër yi macha allah moom lañ leen allah comme ni ngeen ko déggee noonu soxna Aïda drame war a dawal émission li xew ci biir kër yi fii ci Fadia production waaye soxna Aïda Dramé balaa ma xuus ak yow ci émission bi. dégg naa ku bëgg sëriñ fàllu nga soo demee ci bërëbu sëñ fàllu da ngay jooy ba nit ñee lay yëkkati soxna Aïda drame ban jaar-jaar nga am ak sëñ fàllu ah xool déjà rek déglu baa ngi commencé man sëñ Fall man xaw ma lan la wax dëgg yàlla xaw ma lan la man dam moom moo ma boole ci boppam nekk na loo xam ne du ñu ma mën a expliquer mais man xam naa ne heure bu ma demee ci bërëbam bañ ne bërëb bi bërëbu sëñ Fall la bi hmm. may yëg man ak yàlla rek xam ak sëñ Fall sama xol day fees sama xol day tooy te ma jooy man hmm. daal li may mooy sëñ Fall yalla mu yalla tass barke il faut ko wo moy loko ñaan mu defal lok marke balla isa dina tal be sen fal yu hamne hol kuko deg xamne xol lay nan yeg yeg biñu yeg par force la ma sha Allah mom yeg yeg bimu par force la dafa bëgg señ fallu ba su déggé señ fallu xol bi day sedd su déggé kuy tag señ fallu da sagom ma sha Allah soxna ay dëkk bi fi mu toll nii jaxasoo na problème Ousmane Sonko problème Ousmane Sonko lëmbee na réew mi xale yaa ngi taal ban conseil ngay jox ndaw ñi. man de Matar xale yi conseil bi ma leen di jox mooy bu sama sago dinañu dal te xam ne seeni waajur sonn nañ ci juróom-ñeenti weer rek fukkeel bi ñëw xaw lay doom bi di judd dafa metti kon boo juddoo sa waajur bu góor ak jigéen di la tette di sonn ci yow boo feebaree ñu fat boo xiifee mu jox la nga lekk fayal la nga jàng veillé ci sa avenir kon soo demee ba màgg bu doon seen sago dangay jaar ci yoon bu baax mais doo toog politicien rek di daw di sànni di sàcc boole ci naka su dul noonu def leen neex dañ leen di rey man pour man li ma leen di conseil mooy am na yoo xam ne ku leen ci woo bu ñu uyu bu dee voté rek la ak far ku nekk xam nga ki nga bëgg ku nekk xam na xam nga ki nekk sa xol yoral sa carte nga fexe ba am sa pièce d'identité bu vote jotee nga dem nànk ci bërëbu vote kaay nga sànni sa carte nànk vote ki la neex ma sàmba du xam ma demba du xam waaye du xeex di wone farfarloo fii laa far fii laa far boo ko defee sax léegi soo attanee soo sàgganee ñu fekk la ba sa kër dóor la ba nga bëgg a dee di la woon ne comme dangaa far ñun tamit dañuy def lu ñu neex te dëkk lii wóoratu amatul benn sécurité xoolal li fi xew bërki démb ba njaay njaga njaay yaraax ay papa jàmbur ay yaayu jàmbur ay maamu jàmbur ñu fekk leen ci oto bi taal njaga njaay bi ñaari lakk ci ba xam loolu metti na ñu ko def est-ce que dinañ toog xalaat xam ne am nañu yaay am nañu papa am nañu ay mag xam ne lor nañu ay waajuru jàmbur lakk ba xam ñuy am ay gaañ-gaañ am na si ñoo xam sax est-ce que wàcc ñu liggéey loolu métti na ñu léegi ban moon la ñu nekk yan xol la ñu yor xanaa yortuñu xolu jullit na ñu arrêté te xam ne fii dëkku diine la kilifa yu baax yi ñaan nañ fi kon ñoom tamit nañu góor góorlu ñu ngi yee na de te yóbbu nañ seen fitu waajur yi nag buñ leen ko waxee ak buñ leen ko waxul wallaay yóbbu nañ seen fitu waajur yi waay ndaysaan ñoo ko déggandoo soxna Aïda Dramé nee na l'expérience fait la différence carte yi mooy solution waaye wàcc ci terrain bi di sànni ay xeer ak yooyu noonu mun na ñàkk bu loolu weesoo soxna Aïda Dramé jamono ji bëri na ñoo xam ne dañuy jaar ci gaal yi bëgg a dem Espagne ñii bëgg dem France bëri ñoo xam ne sax seen gaal da ciy këpp ba ñu mujjee ñàkk seen bakkan mhm. ban conseil ngay jox ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki te amuñ visa di aw ci yoonu ndox bi man yi dama leen te xam ne yàlla rek a fi nekk xanaa xamoon ne des fois ngay yóotu loo xam ne du la jikk suñu boroom xañ na ko gis nga xañ boobu mu la koy xañ ngay siisu moom yaa ngi siisu sa musiba des fois mu fanqal la ko yàqal la ko doo ko jot parce que du gën ci yow xam nga lu mu la koy defal gudd fan waaw boo guddee fan ndax ñàkk nga dara. déedéet. boo guddee fan ñàkkoo dara kon xale nañ bàyyi siisu bi nañ bàyyi forcé bi gis nga la ñuy paasee ca gaal ya buñ ko jëlee investir ko fii ci seen réew dinañ am dara du dëgg. Mhm. xoolal café Touba bi nga xam ne borom Touba da ñaan. xale yi léegi ku jóg boo xëyewul sa kaf bu mag defal sa kafe bu neex kafe Touba boo ko tegee sa bundu ko sax teg sa saabal bu ndaw ah chaque jour kaas fukki dërëm di nga wàccee lu mat ñetti junni wala mu ëpp ko sax mu barkee lool waaye looy forcé dem dëkku jàmbur lii léeg nga dem ci gaar gi rëcc dem dugg ci dëkku jàmbur boo demee da ngay dem ñu refoulé la nga perte sa xaalis loolu méttiwul des fois nga forcé dem boo demee commencé liggéey commencé am teraanga doo ko fekkee xam na lu ko fi jaar gis nga wërsëg ceenu bato la suñu borom su nee déedéet déedéet day mel ne ceenu bato pour mu ñëw day metti waaye suñu borom bu ko naree indi day na ne wëccin bu ñuy taayu sa suuf lal boo fa tëddee sax dina la ñor di jox la sa wërsëg kon nañ dal rek xam na yàlla noppi na ci torop am na ci xale boo am ne ñoo dëkkoon fii ci gannaaw yàggul tout récemment mm-hmm. xale bu yaru xale bu baax xale bu am diine dama dëkkoon ak fii ay famille mm-hmm. ay maamam ak ay tantam macha allah xale boo xam ne liggéey rek la bëgg tailleur la mais dafa dajale ci gaal yi la dem bi ma yëgee kaw ne dafa wàññeeku mu xale bu ñuy wax seex maa ngi koy jaale waa fajaa yëpp si te fajaa yëpp di ko jaale maama ak ay tantam mère Racky maa ngi koy jaale tantam yëpp maa ngi leen koy jaale xale yi si te fajaa yëpp macha allah ñu am leen naqari lool ci gaal la doon dem te wallaay yéene ma ko waye nak suñu borom def xëy na dafa gën yalla na ndaw ak alaxé ci fu mu jëm ci bañ ko jiitu ca bàmmeelam ndeysaan yàlla na nako yalla yërëm xaaree ko aljana soxna da Dramé nee nit lu mu yotu te jotu ko rek da fekk gënul ci mom kon xalé yi def leen dank tay moytu baña jaar ci yoonu gal bi parce que du solution mm-hmm. dee len fexé bay lijeenti papier di jël vol lolu moy solution yow jamono ji yan lan moy sa projet ci wàllu théâtre bi nga xam ne dañ ci yëngu waaw théâtre bi de man xam nga rek damaa bokk tur tur bi ma bokk rek laay déglu di leen xaar des fois ñu soxla ma woo ma ñu ngi yëngu nag ci ay jën ak jaay ndax boo nekkee borom kër mënoo toog boo yoree njaboot mënoo toog waaye théâtre bi moom li ma ci mën a wax maa ngi ci groupe maa ngi toog maa ngi xam te yàlla baax ma lu jot yomb macha allah di leen ñaanal ah lépp luñ ñi nga xam ne macha allah dañuy gis sa profil di gis ngay joué macha allah loo xam ne dafa jaar yoon di la bëgg jot duñu mun la mun a jot pour di la dugal ci seen produit dama bëgg bu fekkee mun nga jàllale sa numéro bu ko defee maison de production boo xam ne yitte woon na la rek mu mun la woo. waaw des fois aussi ñu laaj nit nit ki ne amoo amul sa numéro mos na ma arrivé. ci seetal ma loolu. billaay ñu laaj nit ñu soxla ma ñu laaj ko sama numéro. mu ne aw ma numéro bu fekk am na ko. loolu du dara koy joxe rek pour mm-hmm. numéro bi 70 la mooy sama numéro Ndaysaan gars yi nee naa leen Fadia production à chaque fois nii lay def ak yéen li ngeen yittewoo mu koy génnee tey ñu toog ak Soxna Aïda Dramé ku xam Soxna Aïda Dramé xam ne dafa marqué empreinte ci théâtre lépp kam ku tourné ne Soxna Aïda Dramé Soxna Aïda Dramé mu ngi toj ba du mun lépp. ñu foog ne fa yem. mu génnaat ci dérapage génnaat ci série na fi yëngal àdduna ba réew mi ku ci nekk naan soxna ay Dramé soxna ay Dramé soxna Aïda Dramé jamono ji bëri na ñoo xam ne dañ defuma dara di xool ñi nga xam ne ñoo jiitu may jàng di xool ñuy répété dañ daan répété ne dañ daan mais léegi amatul ñu si ba dootuñu répété da nga ñëw taxaw nga war a tourné dara ñu la lii ngay wax lii ngay wax lii ngay wax nga wax li ngay wax boole sa euh, boole say fen nga génn ci def ko rek comme ni ko gars kon suma comprendre fi nga bëgg a moy soxna ay da Dramé jogul jog rek def théâtre mais daf ko tarbiyu. waaw bu baax daaree ko ak sék Diagne jog yalla ko yalla yërëm. amen ak suñu directeur artiste. ñu mhm. parle de Ndiaye moom fi man koy nuyu de passage nuyu wa daaree ko yépp maşallah sertten çok. Yanlık yerle yerim. Sonuçta cepen kocuk cibanela duñuy njabatu yépp soxna ayda dramé ñu bëggoon xam ba xam ba léegi mu ngi daaray kocc wala dafa ber ay mbiru bopam. non non non maa ngi foofu ma taa maa ngi ay kocc daaray ko duma fa jóg duma fa bàyyi xanaa ñoom ñu bàyyi ma duma fa jóg duma fa bàyyi non non parce que ñoom la xam ndaysan wax jooju daw na yaram duma ma mos a ko daaray xana ñom ñu bayima kon ça veut dire que soxna da Dramé xam na ne li nekk ci mom wa daaray kocc ñoo ko ci def motax du len mos a woon dadi gor macha allah cité fadia bi mu dëkk ñepp ko rañé ngir baaxam yaato mandom yiwam soxna da Dramé nan ngay taggo téléspectateur yi ba benen yoon waaw xana di nuyu wa cité fadia suma dëkkandoo yépp ñu may seetaan di leen ziar bu baax aw ma fi noonu ñépp ma bëgg ñépp samay xarit lañ di nuyu suñu club randonnée bi suñu club bi maa ngi nuyu sama xarit ci nekk yépp club bi ñépp ma bëgg ñu ci nekk ñépp vraiment su ma ñëwee dañuy kontaan vraiment mënumaa lim su ma mënoon lim dama leen di lim ñoom ñépp di nuyu jël nuyoo bi di ko teg suñu loxo président euh, Pape Ndoye mu séddalee ma ko ñépp di ñaan yàlla ah lépp lu mu bëgg ci club yàlla na ko yàlla defal ndax nag jiit yombul te Pape Ndoye ku baax la te lépp nag lépp lu muy mëbët ci groupe club Randoné bi lu baax rek la avancement la avancement moo tax may ñaan di wax ñëpp nañ jàpp rek doo bàyyi lépp a ngi ci projet bari nag yoo xam mënuma koo wax macha allah di nuyu sama njaboot gi di leen bëggee di leen kontaane waaw mbokk téléspectateurs yi euh, bi mooy première émission ak waa Fadia production kon ni ngeen ko déggee ni ngeen ko gisee euh, d'ici 15 jours di dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen émission émission yi nag chaque jour chaque 15 jours benn ci bokk ak sa morom waaw di leen wax kal leen ko fii rek la ci Fadia production